ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul bàyyi koo ci tombam yooya ak rëdd yaak misaal yam daan jàngalee jàngale eh, mu leer mu fees del ak xam-xamu xikma Serigne Touba mas naa woo taalibe yi ñu bari bañ ñëw mu daal leen di tombal ñeenti tomb tomb bu nekk mu bootal ko ñetti tomb muy fukki tomb ak juróom-benn mu daal di teg loxom bu tedd ba ci tomb bu njëkk ba dal ne maa ngi leen di xamal ne nit kat yent yi rek la am yent yi ko seq ba ci njëkk mooy yàlla sa boroom ak sa mbokkum laqarab maanaam mbokkum deret ak sa mbokkum taalube ak jàmbur boo joteelu dara daal ne ku mu ci yent yi nag yett yi moo la war ci moom daal na yàlla sa borom li la war ci moom mooy lum la digal nga def ko lum la tere nga bàyyi ko lum dogal mu neex la daal na sa mbokkum la xarab li la war ci moom mooy nga bokkak moom pexe bokk ak moom yéene ngeen bokk itam la ngeen am daal na sa mbokkum taalibe la la war ci moom mooy soppante wóolonte tey dimbalante jàmbur bi nga joteelul dara lala la war moom mooy bu ko yeb bu ko xeeb bu ko bañ ndax loo ci def mu delloo la ko tomb bu njëkk bi nag suñ borom tabaaraka wa taala loolu rek lañ war a séq ak moom def ay ndigalam te wattande ko ay tereem te nangu ab dogalam loolu jàngale na ci lu bare bare bare bare loolu mooy melow jullit xaqan mooy melow murid sadiq ndax ab jullit kat lépp lu suñ boroom tànn rek da ko war a gërëm waaye ñaareelu tomb bi itam ay bokk lépp luñ am dañ ko war a bokk waaye dañoo war a bokk pexe bokk itam yéene waaye bu ñëwee ci ñetteelu tomb bi nga xam ne nag mooy mbokkum taalibe maris na cee taxaw ndax day eh, ñoo ngi siyaare sëriñ Maam Balla Sylla ci Cilla waaw di siyaare waa ci la gépp di ko sant moom tamit ci taxawaayam ci ak jàppaleem ci daara ji wala kero de gën a jënaa ko mu wax ma ma bu am solo ci mbokkum taalibe ñun ñi bokk Sëriñ ndax dana ma de euh, la sun borom xeemee moon ba di ko misaal ci mbokk di wax jullit ñi ñu melowoo ko muy ak mbokk innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum sëriñ Tuubaa nag sunu borom defal na ko lu kawe lu kawe loola eh, ci ay taalibeem daal may wax ne mbokkum deret kat maanaam muy mbokkum laqarab ñaar yi da cee yomb lool du ma sa morom ak sa nangam laa du sa morom ak sa nangam laa waaye mbokkum taalibe rek ngay gis kenn ku nekk bëgg nekk ci sa gannaaw morom foo fekk ay taalibe Sëriñ Tuubaa yu taalibe nga dëggu ci ñoom kenn du bëgg a jiitu kenn ku nekk. day bëgg ka ca des doon jawrinam loolu nag liggéey la boo xam ne ni Serigne Touba moo ko liggéey ci taalibe yi ndax damay wax ne kat ñett yi moom képp ku sukk jébbalu ci Serigne Touba fa saasa la ko suñu borom di tàqale ak yow mooy kañaan ak rëy ak nay fa saasa lay daal di dañ la Serigne Touba jàngale ca aljawharu nafisit dal na kat képp ku xool sax ab dawkat jàpp na yaa ko gën dawkat baa la gën taalibe yi noonu la ñuy dundee fa kullu man yanzuru fawqahul kilaab fal kalbu xayru minhu duna lirtiyaab foo fekk ay taalibe yi Sëñ yu taalibe ga dëggu ci ñoom kenn ku nekk sama sëriñ wala jëwrin lay wooyee moroomam kenn du bëgg a jiitu kenn sëriñ Mor mbay Cissé nag noonu na Sëñ Tuubaa yàlla da ko defal loo xam ne ci ay taalibeem lépp luñ jëf ci aw yiw Euh, ñaar yi moom dañ koy dal def fasaasa dañuy fàtte dañ koy fàtte fasaasa ay mu nekk ci seen gannaaw maanaam weesu ak fàtte taalibe yi liñ mën a def ci aw yiw ak ci lu baax ni mu baree waaye lu ci waaye xas def weesu na ko te fàtte na ko nee na taalibe bi sëñ Tuubaa lu mu def dañ ko koy tegal ci gannaawam dootu ko gis ba ëllëg yawmal xiyaam ñu dog ko koo dajaleel waaye nee na nag ñi amut ak defaru buñ defee dara dañ leen koy jóoral ci seen kanam buñ gisee jóor ba rëy lool ñu defe ne am nañ dara te buñ ko xoolee rek gend ku jëf moom ku ko def rek jëf ja yàqu moo tax yàlla noonu suñu borom gën a def taalibey Cheikhul Xadim tomb bu mujj bi mooy ñeenteelu tomb bi itam muy jàmbur boo joteelul dara man ngeen a sax bañ a bokk diine waaye te doon ay dëkkandoo loolu itam taalibe yi nañ ci roy saxaaba yi ndax sëñ Tuubaa noonu ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine Abdurahmaan ibnu Awf yahud bi mu dendaloon ci madina jikkoom ju rafet moo tax mu dugg ci lislaam kon nag ñun kenn ku nekk na rafetal jikkoom ak fu mu fi mën a nekk ak kum mën a dëkkal ñoo ngi santaat bu baax mbokki daaray Hikmatul Yawmi ñëpp rawatina waa association bi ñoom ñi nga xam ne nii kat waxtu wu nekk ñoo ngi def seen dara ci liggéey bi ñu koy liggéeyalee Serigne Touba waaye di ci soññaat ñëpp